ji nga xam ni mooy dara maan di institut Daraman ñu fi jàngale alxuraan muy daara yi internat ak externat ñu fi jàngale alxuraan di fi jàngale tamit xam-xamu diine ak xam-xamu àddina ah, ñu ànd kook soxna si sama soxna di soxna Xadijatu Ka moom mooy taxawee lépp lu aju ci njàngale mi eh, ci daara ji solos ndaje mi ñu woote woon tey li ko waral mooy dañu jàngal ay xale ci daara ji ba yàlla dogal ñu wattu alxuraan ci wattu gu rafet loolu moo tax nag ñu wooteel leen am ndaje doon leen jox seen ay eh, diplôme seen ay shahada woo seen i mbokk eh, ñu boolewaale ñi nga xamante ni ñoo mokkaloon daaw ci daara ji ak ñi nga xamante ni ñoo mokkal ren ndax daaw dañoo programme eh, conférence bi ba pare far yàlla dogal mbas mi tax mënuñ ko woon a def benn cérémonie bu rëy ren nag ñu ni nañ eh, boolewaale ñi nga xam ne ñoo mokkaloon daaw ak ñi mokkal ren ñu jox leen seen i shahada jox leen seen i neexal eh, def ko cérémonie bu bu bu bu bu bu yaatu boo xam ne dañ ci profité waale feeñal liggéeyub daara ji eh, gën koo médiatiser ba nit ñi gën koo xam kon loolu daal moo nekkoon solos ndajem tay mi. ñi nga xamante ni ñoroon doon tari buñ ko boolee ñi ngi toll ci ñi fi mokkal ñi ngi toll ci juróom. waaw diggante daaw daara ji bi ñu ko soseeg léegi yàggut daanaka ci e, at ak wàll lay toll waaw boobaak léegi nag ñi fi mokkal toll nañ ci juróom am na ci ñoo xam ne sax fi lañ ta fi lañ tàmbalee jànge waaye am na ci ñoo xam ne nag tàmbali woon nañoo jànge ci yeneen bërëb ba e, sori waaye e, ci ñëw ñu ñëw ci daara ji àggale fi mokkale fi alxuraan bu ñu doon def bilan bi def xayma nag gis nañ yokkute gu ama ama am solo ci liggéeyu daara ji ndax gis nañ ñi njàngale mi gën naa gën naa gaaw gën naa dox te gone yi gën nañ koo jekku kon am nañ yaakaar daal ci nii lu ñuy gën di dem incha allahu lim bi dina gën a yokku performance bi dina gën a am solo Ah, ndax eh, bu ñu xoolee par rapport ak daaw ak ren gis nañ ni lim bi eh, yokk na waaye itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw di ñëw tamit nga xam ni fii ak déwén incha allah bu yàlla defee jàmm dinañ eh, àggale seenu njàng day gën a day gën a yokk di gën a évoluer kon loolu dañuy jox njortul rafet ci ni lu ñuy gën a dem rek xëy na liggéey bi di gën a yaatu daara ji am na yeneen projet ndax daara ji daara moderne la daara moderne la maanaam dañ fiy jàngale alxuraan d'abord xale bi bu ñëwee dañ koy jàngal alxuraan euh, fexe mu wattu alxuraan ci diir bu gàtt li ñu bëgg mooy xale bi wattu alxuraan ci ñetti at mu bu mënee nekk sax ci lu gën a néew waaye comme xel yëpp yemuñ am na ñoo xam ne mën nañoo wattu alxuraan ci ñetti at am na ñoo xam ne mën na koo ëpp mën nañoo dem ci ñeenti at am ñoo xam ne juróom waaye bu ñu watee alxuraan ba pare yit dañ leen di encadré waale ci wàllu li ñuy wax euh, enseignement classique bi wàllu français bi di leen ci initier ak wàllu li nga xamante ni mooy arab bi it ba nga xamante ni gone yi ñu fi jot a mokkal ñëpp fi ne daanaka eh, initié nañ leen ci wàllu ñuy ñuy ñuy ñuy liir ak di mën a bind ci français ba nga xam ne dañoo bëgg daal eh, ñu dem ba mu nekk daara moderne joo xamante ne nii day am programme mu majalis nga xam ni xale yi dañ fii bu ñu jàngee alxuraan ba pare bu ñu defee ñaari at wala ñett rek lu mu gën a bari mën a am seen certificat bu ñu bëggee jàll ci yeneen écoles yi mën a mën a mën a mën a cee jàll Euh, ñu ngi ci processus su am autorisation mu nekk daanaka sori na euh, mi ngi ministère yaakaar naa nga xam ne bu ñu fi ay kii yu néew rek yaakaar naa dinañ ci war a jot. mu nekk daara joo xam ne ju ju ju ju office ju ju formel la daara moderne joo xam ni état bi daf ko daf ko reconnaître nga xam ne boo demee ministère euh, de l'éducation nationale inspection des daara boo tapé institut Daraman euh, di nga gis ni nekk na fa nekk ci daara yi nga xamante nii reconnaître nañ leen foofu. jafe-jafe yi moom moom bari na ndax njàngum daara moom euh, état bi gëdd bi mu ko war a jox daf ko ko joxut daanaka programme budget état bi boo xoolee daara yi bokkuñ ci. te moo na dañuy eh, contribuer ci formation ndaw ñi ba pare tamit dañuy créer ay emploi parce que biir daara ji eh, lu mu néew néew lu mat juróomi nit ñoo ngi fi am eh, salaire nga xam ni weer wu dee am na lu ñuy yóbbu seen kër di ko teddee muy bàyyikoo ci daara ji di bàyyikoo ci njàngum alxuraan ànd ak loolu lépp nag daara ji dafay am ay jafe-jafe ndax loolu lépp ay charge la xaalis moo koy def ñi nga xam ne ñoo fiy jàngale da nga leen di fay béréb bi nga xamante ni fi nga nekk tamit am na lu ci war nga war koo nga war koo fay am nañu ay projet yi nag wut suñu bërëbu bopp defar ko ba mu kawe ba yëkkatiku waaye it loolu mënaguñ ko ndax euh, doole ji àggagut foofu àggagut fa mu war a àgg kon yooyu yëpp di ay xeeti jafe-jafe yoo xam ne dañuy jàngonte ak moom kon loolu moo tax daal bu ñu amoon euh, ndimbal ci ñi nga xamante nii dañoo bëgg alxuraan Ah, xam ni ku ja ku jàppale alxuraan ku ne yàlla moo lay jàppale waaye itam état bi nga xamante ni tamit ñun dañ cee am wàll ndax doomi réew mi la ñuy formé di leen yar di leen jàngal état bi it suñu uh, tegee loxo. Euh, jox ñu suñu wàll dinañ dinañ dinañ dinañ ko rafetlu bu baax a baax ndax loolu nekkul loo xam ne dañ ko koy ñaan waaye euh, droit la boo xamante nii dañ koy dañ koy dañ koy euh, réclamer dañ koy revendiquer waaw kon daal am nañuy jafe-jafe yu baree bari moom ci comme daara yëpp ni ngeen ko xamee ndax ni ñu ñàkk ni ñu ñàkk bénéficier woo ci subvention état beeg yooyu waaw waaye nag ànd ak loolu lépp ñu ngi góorgóorlu di contribuer ci former former ay ndaw ñoo xamante ni dinañ nekk ëllëg ay citoyens yoo xam ne ay modèle la ñuy doon waaye itam di fexe ba nit ñi création d'emploi ñu ngi ciy bay suñu waar ci kem li ñu tollool. dëkk bi ñu nekk euh, Serigne taxaa yàlla na fi yàlla yàlla na fi yàgg lool te wér euh, ba lii yi nga xamante ni am na ko. ci liggéeyal sëñ tubaa yàlla kàttanal ko ba man koo am dafa am projet bu rëy boo xam ni daf koo yëkkati muy ci wàllu njàngale ak yar muy université bi nga xam ni moom la sumb ñun nag li ñu ko ci fas yéenee jàppale nga xamante ni jàppale ko ci day warteef ci bépp jullit rawatina bépp taalibe buy dund fii ci Touba mooy ñu dim ñu contribuer ci formation xale yi ñi nga xamante ni ñooy tuut tànk yi ndaw ñi ñu former leen ba nga xam ni université bi demee ba muy ubbi ba soxla ay ndaw ñoo xam ne dañ fa dem ñu leen fay former fekk ñun ñu bokk ci ñi nga xam ne am nañ xale yoo xam ne waajal nañ leen ci diine alxuraan waajal leen tamit ak ubbiku ci seenum xel ci wàllum njàng àdduna ba nga xamante nii xam-xam yi ñuy jàng ci université boobu ñoom buñu demee dinañ fa mën a dem intégré fa facilement mën a mën faa retrouver wu kon daal loolu mooy li nga xamante ni mooy objectif bi nga xamante moom lañ gën a am ci daara ji muy suñu euh, jàppale sëriñ bi ndax buñ ko deful kat dañuy gis ni ambition sëriñ bi réy na lool waaye bu fekkee amul matière matière ni maanaam bu tabax yi paree université infrastructure yëpp àgg te amul ay xale yoo xamante ne ñoom ñooy ñëw euh, enseignement supérieur bi ñu mën koo ñu mën koo capté bi nga offre de formation yi am ci daa ci université bi ñu mën ko capté xëy na ñeneen ñooy jógee ci yeneen dëkk ñoo xam ne ñoom la waajal bu ko defee ñëw ñu jàngal leen fi buñ demee buñ paree dem delluwaat ci seen dëkk yooyu jariñ dëkk yooyu léegi Touba mi ni moo jiitu ci li tax sëriñ bi créé université bi Touba mën na caa a gis boppam kon loolu ab euh, défi la jàpp loolu nag ñun dañ cee bëgg a bàyyi suñu waar euh, jàppale ko ci bu baax a baax waaw kon daal loolu mooy li ñu doon tëje di leen sant dileen gërëm bu baax a baax nag ci teewaay bi waaw jërë ngeen jëf